mbokki Grand seen doom moo di nuyu mbokki Grand Yoff commerçant tablier ambulant jakarta cak-cak ñëpp ñuy daan seen doole di ñax ngir jëriñu ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne nag Sénégal doomu Grand Yoff moo ñëw pour tabax Sénégal te bu ñuy tabax Sénégal dañuy tabaxaale Grand Yoff léegi nag xam nañu ne góom juróomi góomu Sénégal yi métti na ndóol bi a fi ñàkk njàng ñàkk xëy ñàkk kaaraange ak ñàkk wér loolu moo nekk Sénégal loolu kan moo koy faj docteur Kama moo koy faj cinquième président du Sénégal kële kan la dégguma leen de kii mooy kan Sadio maane boo ko génnee ci football bi dara desatu ci maane Mané barewul coow wala dafa bare coow mën na football wala mënul football yaru na wala yaruwul baax na wala baaxul mu ngi dimbale waa dëkk bi wala dimbalewu leen que di ngeen ko gis muy ay bërti bërteeg yu ñàkk fayda Sadio Mané ci futbal bi Kama ci politik

ci centre culturel ñu mëna woné sen talent gratuitement ñu mun leen defal promotion culturelle li ñuy def mu mëna wër aduna ba ñu mun ci gis sen bop ba paré personnel culturel ñu fexé ba artistes yi di dundé sen sen art ba nga xamné ne ñu fi kétal kenn ku fébar mais dañuy am ben protection sociale ba bu ñuy retraité lolu mo doon waxtanu tay bi ñu kontaan ci trop di sant di gërëm gëdjé wa yépp merci beaucoup